Aliou Mamadou Dia le candidat du PUR. xaw ma ko moom. waaw mais PUR. oui dina am électorat PUR. am électorat PUR. mais pas plus. yaakaaruma ko dina am électorat PUR mais PUR bon ah ils avaient représenté pour cent aux dernières élections bi non. oui ils étaient quatrième. mais loolu bu ko amee pour un départ c'est bien. Hmm. 3 4 pour cent kay ko am ci élection présidentielle Sénégal c' est très bien. mais boobu nag cinq candidats lañu amoon. Déthié Fall. très organisé très structuré bu fekkee ni organisation rek mooy joxe réew moom mooy gañe. Hmm, Déthié. très organisé très structuré. xam na fi mu jëm. waaw est que loolu rek doy na. pour jiite réew mi. loolu euh, aussi ah, non pour gagner. Hmm. jiite réew mi c'est autre chose. Thierno Alassane Sall. waaw intellectuel organique la moom mais mais amul parti bu mag amul mais c'est un intellectuel organique. mais est-ce que recours bi mu porté contre Karim Wade est-ce que politiquement dina ko dina ko jëriñ dara wala dina ko yàqal. mais pourquoi recours contre Karim Wade rek pourquoi defu recours contre Diomaye contre ñeneen moom dafa jàpp ne il faut respecter les principes et valeurs euh, euh, républicains mmh, d'accord c'est ça sa ligne de de, ouais, de, mais, de défense mais respecter lui il les... n'est pas il dit ne pas être dans la compromission voilà mais loolu bu baax la c'est bien il a porté le combat il a gagné temporairement c'est-à-dire non dafa porté combat contre Karim Wade ma fi ñu toll nii moo gagné mm-hmm. combat boobu mm-hmm. mais politiquement. waaye nag yu mel noonu da ngay indil ay kii mais dana indil ay noonu. mais politiquement est-ce que dina ko indil. dara mooy li dana dana indil ay soppe waaye dana ay noonu. Mame Boye Diao. waxtaan nañu bi dem Màkka ñoo bokkoon avion waxtaan nañu ci lu yàgg ci avion bi. Hmm. Euh, candidature am réaction la xëy na am na nu ñu doon waxeek moom. du waaw wala nu ko doon considérer wala nu ñu ko doon respecter xëy na mën naa bañ a dem. Mm-hmm. Hmm. mais dafa jàpp ni daal dañ ko dañ ko minimiser. waaw wala liñ ko waroon jox joxuñu ko ko wala respect bi ko waroon joxuñu ko ko wala. wala boog bi ñuy def liste bi dañ ko doon consulter wala boog wala boog wala boog wala boog jàpp nañ daal ni mu sonne ci yëf yi mën nañ ko cee gën a jox cër. Aly waaw Aly Ngouille nag moom yàgg na ci rouage nguur gi vraiment yàgg na ci occupé na fonction yu bari vraiment moom aussi euh, problème am lu ñu mënoon régler la. Mhm. mais moom depuis bi leen Macky Sall dàqee. ci la traumatisé wu ba léegi daal Macky Sall xëy suba ñoom ñëpp dàq leen bàyyi leen ci mbedd mi lu yàgg après mu jëlaat leen jàpp na ni daal. Euh, humiliation ni ñu ko waroon nawloo woo nawloo woon ko noonu. ñaari Aly guy mooy koo xam ni peut-être am na nu ko Macky doon gérer rek mën na sax bañ a agsi fii. mais dafa mel ni Aly Ngouille moom nee na wax na amul ba bu leer ne du ko jàppale wax na ko Macky sàll ba mu leer ndax ki ñu tànn doyu ko. Mhm. dafa mel ni mbir mi digg moom ak Amadou Ba la. non du moom ak Amadou Ba kese. Hmm. parce que moom ak Amadou Ba pendant cette période wax nañu wax nañ par personne interposée demoon na sax ba nar a ànd. je pense que ni Macky Sall defee. moo ko neex waaw. Malick Gakou. Pape Malick Gakou yàgg ci politique la ku euh, xam politique la bébé socialiste la et puis euh, waaw bu defee bu defee le plein de voix Guédiawaye euh, am ci banlieue bi pourquoi pas. mën na am dara. ñëpp am chance. mais boo doon pronostiquer. le cinq majeur hmm. loolu laa la laajoon hmm. nga ne ma di ma ko wax waaw le cinq majeur ñan la dinaa la wax sax lu gën a tuuti cinq majeur bi fii ak quelques jours boobu da ngay mais pour le moment hmm. cinq ñan wala sept ñan nga jàpp ne mën nañu bokk ci classement non du ma wax sax en terme de il faut ma wax la aussi ñi ma jàpp di mën nañu yor réew mi mën naa la wax loolu waaw waaw waaw parce que loolu aussi c'est important parce que wax ay chiffres te waxoon nit ñi nit ñi ñooy ñan loolu amul sens aussi mm-hmm. ok Amadou Ba mën na yor réew mi mm-hmm. xam nga lu tax mm-hmm. li réew mi soxla moom la mën c'est-à-dire dafa dal dafa souple dafa modéré. te réew mi loolu la soxla ak. mën ngaa gis Amadou Ba xuloo kenn wala mu xeex ak kenn. <laughs> Hmm? xanaa ma laajte waa finance. Hmm? est-ce dañu laajte waa finance. donc bon li tax ma commencé ci moom mooy candidat yëpp yëpp yëpp moom laa ci gën a fréquenté. ci cadre bu dul politik xam nga baax li ma la bëgg a wax. Mhm. sa Seck fréquenté naa ko lu yàgg yàgg yàgg yàgg su Wade bi mu génnee ci nguur gi. Mhm. mais cadre politik lañ doon fréquenté comprendre nga. Déthié Fall sama frère la dafay ñëw ci man. jonn bi mu nekkee PM lañ lañ xamante après ñu gàdd de moo rapports mais Amadou Ba dañu yàgg yàgg gisee lu dul politique. bi ñu gën a jaxasoo mooy bi ñu ko dàqee ci nguur gi ñu denn kër di yooyu maanaam qualité yi ñuy wut yëpp ci nit am na ko. ci njiit ci nit laa wax nit d'abord nit. Mm-hmm. nit nit quoi nit. tu comprends ci modération ak dal ak yaru ak respecter nit moom bu yoroon réew mi du xuloo du xeex du régler compte ak kenn. dinañ dem ci dal waxam mooy defar a gën yàq pense que mën na te xam na affaire bi mën na doxal affaire bi buñ jon mën na affaire bi mën na yor réew mi parce que dafa xam dossier yëpp à force de liggéey ak Macky ba bëre buñ jon il est ingénieur la c'est-à-dire que il a les qualités de Macky et puis day noté et puis day décider xam nga li ma bëgg wax day mm-hmm. noter dafay décider Idrissa Seck ku ko joxoon de mu doxal ko bu baax a baax a baax laaj ma lu tax ah. dafa mos a réewe ci dundam nekk président dafa préparé wu à la tâche lu ba pare xalaat ci lu yàgg lu bari boo ko joxoon réew mi premier jour bi ba fi mandat bi jeexee xam na fi muy commencé xam na fi muy dal. pare na quoi. ba pare foli bi nekk ci Wade dans le bon sens du terme moo nekk ci moom dafa bëgg waaw góor dafa bëgg maa def lii donc boo ko joxoon réew mi ay affaire yu garaaw lay def comprendre te il dafa am autorité. Idrissa désordre yi am yëpp su Macky Sall bu doon idée du am c'est pas possible c'est pas possible kaaw Sonko moom bu fekkoon Iddi moo nekk président. Hmm. comme li Sën wax ko ak micro. waaw hmm. est que dégg bi. Hmm. mu jeex tàkk kon affaire yi deux mille vingt deux mille vingt et un lay am tëgg semmiñ ak gémmiñ la comme li wax soit Sonko da koy rey wala Iddi ko wax ji jeex. mais traîner nii ay deux ans ngay chaque jour ngay perturber réew mi non il non loolu c'est pas possible il nekk président non loolu c'est pas possible. keneen. Euh, Déthié Fall bu bu cérébral la. polytechnicien la te dafa xam problème mu Sénégal yi ak solution yi agriculture rek la lay wax moom ndax dafa jàpp ni réew il faut nit ñi lekk ba pare dund ba pare sax lu ñuy def ñu def ko